yasalunaka moolu leen imaamuna teewolu sayyidu ruuxuna ibnul imaami lasana ndax yàlla fay nu aljanaa bienvenue sur Sud FM imaamuna te woolu sayyidu ruuhuna ibnul imaami lasana ndax yàlla fay nu aljana bismillahi rahmaani rahim allahuma laka sumna wa bika amanna wa ala risqika aftarna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna غاب الذمأ وابتلت الأروخ وثبت الأجر إن شاء الله وشكر لرازقنا ثم صلاة ربنا على نبي شفيهنا xerawlu leen ma deeti way asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu oxulaahi jantum nga neel ba suuxina jël si nañ seen jotaay bii di yesalu naka ngeen koy am marax gu jot ci waxtu wi ginnaaw bi nu dogee ba noppi min hasana ndax yàlla fay nu aljana nan gëm te xam ne seydina su ko defee tabarakallahu ñu daal di tàmbali ko ak yéen rek niñ koy baaxoo ji defee war di jaamu rabbana limaamu ne na jullikaay xaaj Mbàkke ngi nii studio bi xaaj Mbàkke asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu na bàyyi la nga nuyoon te ngay ñoo ngi lay fay nuyoo di la nuyu di nuyu mboolem ñuy bàyyi xel si defem seen rajo rawatina seen jotaay bii di yasalunaka fi diini wal xayaa bu ñu masaan toll fii nga fàttali ñu tabarakallahu lu jëm ci eh, waat waxtu bàyyi xëdd wi insha allah oustaz ëllëg incha allah di tolloog eh, fukki fan ak benn ci weeru tubaab bi waaye tam nekk ci catul koor gi bu ñu wooree ba cinq heures onze jot ci la ñuy bàyyi xëdd incha allah incha allah su ko defee bu ñu wooree ban heure la ñuy dog bu ñu wooree ba dix neuf heures trente sept jot ci la ñuy dog allah trente kon yokk na tuuti moom tam waaw yokk na tuuti kii ngi yéeg ngay wàcc waaw kii ngi yéeg kii ngi wàcc daa nga nu wax tam fu nu yendu tabaarakallaahu waaw tey de oustaz yaa ngi yendu fële ca Pikine ginnaaw raay eh, nekkoon fa ak eh, mbokk ya ak soppe ya fa nekk doon fa waxtaane lu jëm ci eh, jikkoy jullit nan la war a mel dafa mel ni moo doon suñu xaad mu muhaadara ci koor gi waaw oustaz moo nekk conférence bi nga xam ne moo mujj ci koor gi ndax ñaare dimanche jooju mujj ci koor gi ngay fekki sa xarit yooyu ci Pikine mooy tëj programme koor gi ci wàllu conférence yi jërëjëf kon nag xaaj bi ci tege sañ Mbàkke waaw koy lu jiitu ñu ñëw ci xaaj bi ci tege démb ci waxtu wi gannaaw nekkuñu fi woon te moo nekkoon bis bu mag bi nga xamante ne dañ cee woote woon woo woon ci soppe yeeg am jàmm yi fële daara ja mhm. nekkoon bisu alxuraan bi daan nga wax sax buy jub si ne woykat ba daa yàkkamti woon ne bis bi ñëw na <laughs> waaye bis baa ngi door a ñëw démb itam foofa nga yendu bala maa wax xaaj bi ci tege te mooy xaaju auditeurs yi danaa ubbi foofu aw laaj wu gàtt gàtt rek daan la mhm. ciy delloo kàddu gi naka bis ba ak euh, tari baak euh, noo ko dunde waaw bis ba de sëñ Mbàkke mel na nam daan mel ba xaw ko raw dëgg yàlla am masha Allah daan xew xew na fa xale ya doon tari mokkal nañ ustaas si sargal nañ leen mboolem koo xam ne kii ñëwoon nga ci jotaay bi tabaarakallaahu euh, séentu woon nañ sax wala boog li ñu gis daf ko ëpp di am te lool ci teewaayu nag sunu sunu rajo. Mm. ndax xam nga dama la wax ne média yi kenn du ñëw. dëgg la ndeysaan. te fuñ ma wooyee ma dem. ndeysaan moom koy lu daw yaram la. waaye mun naa fexe ba ñëw. danaa bind lettre danaa dem ci ñoom lu ne daan dugg. maa fexe ba ñëw. ndeysaan xam naa danaa wax Fatou Diallo mu wax ak ñoom. moom yor communication. ndeysaan <laughs> ala kulli xaal ñëpp ñëwoon nañ waaye sunu rajo bi ni ñu teewee rafet na lool macha allah. li tàmbale ci Ndeye Mariam Ndiaye xam kilifa la fi. waaw ah ñoom. Euh, ñoom Soxna Issa ñoom ñoom Soxna Issa. Mhm. Adja Issa ñoom. Adama Ndiol Adama Ndiol macha allah Moussa Thiam moom kay ñoom ñëpp ñu tubarkalla ñëw nañu wax dëgg yàlla. kon nag bëggoon naa ci lool waaye teewaayu suñu Abdou Mbacke bu Cheikh suñu Cheikh Khady. Mhm, euh, rafetoon na ci ñun lool wax dëgg yàlla bëgg nañ ca. ndeysaan ñooñu ndayeeli bis ba tam tabarakalla ñoom tam ñëw fa. Mhm. rek kontaan nañ ci lool. dëgg la ku mel ni ñoom Adja Khady Sall Khady Sall ku mel ni ñoom seen aja seen bu dukkure euh, wax dëgg yàlla moom daal biir bi daal suñu bàkke mhm. moom macha allah daal nga xam ne ren daal foofa ca daara ja mokkalal nga fa juróom-ñetti xale mokkal nañ fa alxuraan waaw tabaarkalla am na ci koo xam ne ki juróom-ñeenti at la am mhm. ndeysaan la ci gën a tuuti waaw waaw mu ngi toll si juróom-ñeenti at tubarkàlla yal na yàlla barkeel amiin amiin gën a suqali liggéey bi ñu ngi la ciy ndokkale bu baax baax di bëgg cam ci émission bi ci bekkaay def ci faja ci suba mhm. euh, bekkaay mbay bekkaay mbay def na ci émission bu am am solo waaw waaw bu soññaate ndax xam nga rajoom moom dafa xam daara ja bekkaay waa dafa xam daara ja ndax indi na fa ñaar doomam mhm. ba kenn ka tari na mhm. la def na ci daal tey jitaay bu am solo macha allah euh, jotaa ko déglu ndeysaan macha allah yàlla koy la gën a jàppale amin yaa rabbal alamin ndax dégg nga wax démb dëgg la bëgguma sama doom yëpp naan kott na ko daan na ko yëkkati ko walaay wax ju daw yaram la wax moom kay tubaarkàlla daw la xam naa la waaye démb moom def ci la am na solo oustaz <laughs> uh-huh. jërëjëf ñu jaajëfal la kon jaajëfal mbokk ya fa teew yëpp jaajëfal sëñ Pape Dieye ci wettali wi daal jël auditeurs yi ci ligne bi nag ci 88 628 98 98 98. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Oustaz Mbacke Cheikh Gueye Gueye Ngay Xasan. Cheikh Gueye naka waa Ngay Ngay Xasan. ñu sant yàlla bu baax ah, Oustaz na mën nañ leen de. jërëjëf ñoo leen raw ñoo leen raw. bàyyi <laughs> nañ si jàmm bu baax. alhamdulilah. may ziar bu baax Mbaye Sarr ak eh, Soxna Xafsa Gueye ak eh, Fama Sarr. ndeysaan. da leen di teewlu fu mu toll ak Thierno Ndiaye. ndeysaan ndeysaan. ñu amoon benn question rek bu jëm si wàllu miraas. waaw waaw. kii dafa àndoon ak euh, papam di voyage bi mu ànd ak papam ñu def accident ñoom ñaar mm-hmm. mais bi ay mbokkam ñooyu xamuñu ñoom ñaar kan moo ci njëkk a faatu mm-hmm. mais laaj papa ji ak doom ji kan moo ci dond moroomam am na solo ah mm-hmm. beneen bi ci wàllu asaka la jëm ndax euh, soo bayee sa toolu gerte ba pare sa nga cee jaay dara euh, ca génne goo asaka d'accord wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Cheikh Gaye ngay ngay xasan ñoo ngi lay jaajëfal. ñu ngi koy bëggee baax a baax ci dugg ba am sala bi mi ngi tudd. Euh, Modou Mbeng Ndiaye mu nga fële ci Saint-Louis di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy jaajëfal baax a baax sëñ Cheikh Gueye ne na waajur wu ànd ak doomam far yàlla dogal ñu def accident waaye bañ ñëwee fekk nañ ne ñoom ñaar faatu nañ ci wàllu miraas ndax dañ naan kii njëkk a faatoog kii njëkkut a faatoog nu ñu koy miraase. alhamdulilah subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakim bu ñu ñëwoon fekk papa ji faatu. ñuy yóbbu doom ji euh, hôpital mu faatu ci yoon ba. Hmm. daañ xam mais comme ñoom dañu ñëw dañoo faatoo ndoo kon ñoom duñ donnante mhm. ginnaaw dañoo faatoondoo ñoom duñ donnante mhm. seen mbokk leen di donn mhm. wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz mbokk mi jërëjëf euh, ñu jël keneen ci ginnaawam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Mayoro namoon nañ la dama <laughs> da nga ma jë bëgg a jiitu <laughs> dama laa njëkk a namm rek kon <laughs> waaw oh, ah, namoon nañ leen lan namoon nañ. Ah, ok faal faal kon ay rek la. ah kon ay namante la. ndeysaan. mi ngi leen ziar bu baax di ziare sunu sang boobu Oustaz Alioune Sall. ndeysaan. di ko ñaanal gudd fan ak wér gu te yàlla kattanal ko. jërëjëf. Ah, Sëriñ Balla nee na mi ngi leen nuyu bu baax ak waa marché bi yëpp. Sëriñ Balla Fall ak sama nijaay Alioune Guèye. Mhm. ak maam Khadika Nim ak ñëpp daal bu ñu bëggee lim dañuy xam naa nag dañuy dugal ak madame Fall. ndeysaan <laughs> ndeysaan. am naa fi benn laaj rek. Hmm. Euh, sama mag Balla Fall moo ma ko yónnee. Hmm. mooy nee na yàlla dal boo waxee julli leen lim cee toftal mooy génni leen asaka wala mu ni joxe leen dépassé ci yoonu yàlla. ndeysaan mu ni ndax loolu bu julli jàllee moom joxe daa gën wala déet. ndeysaan am na solo ñu ngi laajaale oustaz damaa dégg léegi mu ni kii mokkal ki ci gën a ndaw juróom-ñeenti at moom. Hmm. ñu koy laaj. daal ja moom ñaata at la ñuy jëlee. waaw donc d' accord mais yow nag démb gisuñu la fa de amuloo xam. mbak <laughs> orantine. Hmm, <laughs> jërëjëf amul benn problème amul benn problème ñi jaajëfal ko baax a baax aaj ma yoro Fall cité Fadia. jaajëfal mbokk mi di Serigne Saliou Mbeng tailleur la ci Rufisque di ànd ak ñun jotaay bi. jaajëfal ko baax a baax sëñ ma yoro nee na magam ji da ko ne daa seetlu suñu borom ci wàllu ci alxuraanul karim fu mu waxee euh, julli rek joxe asaka la cay rek muy laaj ñoom ñaar ban relation la ñu am. waaw bi ñu am kay mooy. kere ba yonent Yàlla Isaa gane àdduna ba muy wax daf ne wa awsaani bis salaati wa zaka daal ni dumtu xayya kon salaatu ak ñooy ànd ndax salaatu la sunu borom moom zaka la nit ñi moom mhm. te loolu rek mu am ibaada xidma mhm. loolu tax yàlla di leen boole ñoom ñaar bëgg képp koo xam ne kii góorgóorlu nga ba sa ibaada ba sa xidma jaar ci yoon xidma nag mooy li ngay defal nit ñi mm-hmm. kon ñaar yooyu moo tax suñu borom di leen boole wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz ñu ngi lay jaajëfal baax baax ci tontu lu am solo loolu ma Mayoro jërëjëf ñu jël beneen auditeur bi doo a ñëw sëñ Mayoro ci sa ñaareelu laaj bi salaamaaleykum waaleykum salaam bismillah bismillah allo yaaram bismillah waaw sëñ Mbacke Sylla. waaw kay soxna si na def. maa ngi sant yàlla bu wér. alhamdulilah. alhamdulilah. jërëjëf. maa ngi rafetlu émission yi. alhamdulilah leen suivre bu baax a baax a baax. jërëjëf. ñun ma sama soppee eh, oustaz Alioune Sall. ndeysaan. léegi ma amoon euh, benn laajte lu ma xaw a jaaxal fan yii damay dégg ñu naan waa naafila yi ñuy naafila. Mhm. naan bés sàngam lii nga siy def bés sàngam lii nga siy def ba weeru koor bi mhm. ma dégg daal benn oustaz uh, mhm. loolu yëpp ay bidaa la du loo xam ne lii dañ ko war a def mhm. ndaxte yonent bi daaw ko def d'accord mu jaaxal ma lool ndax waaw li mu dama doon laajte tamit ndax jigéen am na droit wàññi karawam karawu boppam di sukkay sukk sukk ba daal sonal ko lool ndax mën na ci wàññi tuuti d'accord waaw jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ci dugg bi soxna si ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëfal mbokk mi di euh, monsieur Ndiaye Ablaye nekk fële ca Daara Ali Imran ca Daara Cuubu jaar nañu jotaay bi. jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu soxna soosu ak yaayu ummi. Mhm. mbokk mi Oustaz nee na dafa dégg daal ci wàllu nawaafil yi am ci koor gi euh, ñaare julli yi ñaan guddi tey nangami rakk la ñuy julli ku ko julli da nga am nangam ci tiyaaba nee na am kenn ci ñuy jàngale ci rajo yi daal di wax ne daal loolu moom Euh, demewut noonu ndax yonent bi daanu ko defee noonu mu bëgg nga mhm. wax ko ba xam loolu nan la ko lislaam gisee waaw suñ mbàkk xam nga julli moom mhm. am mbir la mhm. ñaan am mbir la bu ci dugalee na nangam bidaa la comme léegi julli moom naa naafila rek su baaxee suñu borom nangu la su baaxul mu delloo la léegi nag boo ci indee loolu la naa Ali waxoon rek fekk waa ji julli bi ñu julli taksan ba noppi muy julli ñu ne ko doo ko tere mu ne tere kuy julli julli loolu da a ko ñeme waaye man ñimamu ko tere kuy julli julli. Mm-hmm. loolu yéen a ko ñeme waaye man ñemewuma ko. Mm-hmm. kon nag waaw kon nag léegi bi daal ko ne nan ko bàyyi. Mm-hmm. ah bu nu ko bàyyee di def leneen. waaw nan ko bàyyi. ko bàyyi di def leneen. am na. bidaa yu rafet am na. bidaa ci wàllu ittihaad ci tarbiya am na. ndax yëpp ñaaw am na ñu ne waaw am na yëpp ñaawut am na ñu ne dafa rafet. ñene dafa rafet nag def ci am ñoo xam ne ñoom ñoo indi salawaat yooyu mhm. waaw ñene dafa rafet ñoom ñoo indi nawaafil yooyu mhm. léegi nag ah koo xam ne kii am nga cawarte mhm. jàpp ne léegi mën nga koo def te du jël sa temps dara nga def ko daal li ci fay ba bu la ci fayut euh, rek nga xam ne fay ñu la ci rek mm-hmm. du dëgg mm-hmm. waaye daal wax dëgg yàlla ne bidaa la bàyyi leen ko mansallah bi mun sultaan yonent bi daaw ko def mm-hmm. mën naa am ñëpp bokk ñu àggale ko foofa wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax baax sëñ ma yoro ne woon na gannaaw ci tànk yi am na ci koo xam ne juróom-ñeenti at la am loolu yóbbee ko laaj bopp mooy ñaata at la nit di am ngir dugg ca daara ja daara jërëjëf daara ja ñi fay dugg juróom benn la ñu am incha allah ku fa duggee juróom benn at bu la yàlla baaxee da fa defaat ñetti at jàpp ñeent bu fekkee ci ñi mokk ci yàlla baax nga mokkal alxuraan nga mën a mokkal incha allah mm-hmm. waaw jërëjëf soxna si génn léegi oustaz nee na ci wàllu watu ndax jigéen mën naa jékki-jékki rek jémp karawam maanaam wàññi ko waaw bu fekkee wàññi bu maaruf la ñuy wax de moom nga xam ne moom léegi du def boppam neen mm. du ko defum nel du ko wàññi ba ko comme romb ñu xam ni kii dafa rangé kawaram gi mhm. su boobaa dara dara nekku ci mhm. waaye nag wat ko ab nel nag fa mu romb ñu xam ni kii dafa am nel nag loolu mhm. daganut wallahu taala alam wa shukran barkalla jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax te di ko ndokkeel ci 88 628 98 98 33 841 22 33 asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mbacke Sylla waaw bisimillah man la Abdourahmane Abdourahmane 97 waaw waaw Mbacke awaat nga junni. <laughs> waaw plus junni bële. <laughs> waaw waaw plus junni bi bu toogee bu milliards yi ñëwee moom. man kay ama ah foofu lañ ko teg. <laughs> kon kay baal man tam ma xaar samay milliards rek bu ñëwee ma far la ko baal. déet Mbacke ba sama bos man mii même man mii sama bos yaakaar naa yàggatul. tey eh, Mbacke yow doo daanu. ak jërëjëf bisimilah. Euh, dama ba fane par dama xoon naa wax euh, li Oustaz Alioune Sall def ci man. ay ci bisimilah ko. balaa boo damay firndeel ni sama waa ji sëriñ la ba pare. ndeysaan Bakke quatre vingt sept deux mille sept deux mille huit yooyu. waaw Oustaz dafa mos a wax ni jigéen zéro la bu bëggee am njëriñ day nekk ginnaaw un wala deux. Hmm, moo ko waxoon waaw man mii euh, dugg sama bopp. Hmm. waaye ma dugal ko ci kalaamu awlu yaale sa xam rek ma dugal ko fa noppalu. Hmm. maam mbir xale bu jigéen bu woote woon xaw ci yëkkati dënnam. mais 2017 laa gis lu sax wax. damaa amoon benn calendrier bu ñu bind 2017 euh, benn calendrier bu bind 2012 en en lettre. bindaat dañ bind 2012 bi en chiffre ba pare. Mhm. bind ci suuf en lettre bi ñu bind ci premier chiffre bi 2 bi ñu bind ci 2 0 bi ñu def ci 1000. Mhm. ma ne Cheikh Oustaz li 0 bi nekk ci ginnaaw 2 bi moo tax ñu bind ci moom 1000 te boo génnee <laughs> dooru doon dooru doon li mu doon. yàlla yow waaw baax na jërëjëf. am na solo de doomu doomu doomu doomu yaa astubeeg. Baye euh, Mbaye Baye Mbaye. <laughs> ki jàngee kub kub. juddoo Thialé jàngee ko kum ci Baye Ma ci Baye ñëwoon Ndakaaru jëm Tamba par par toog. ndeysaan. billaay booru mu jàddi dina ma jaaxal. loolu daal tegal naa la ci yow yeneen junni ci sa junni bi ma digoon teg naa ci yeneen ñaar. <laughs> jërëjëf la ma may la te nga non non il faut ma may la ko tey. <laughs> jërëjëf jërëjëf sama waa ji la <laughs> ñu ngi koy jaajëfal baax oustaz ci duggam boo am solo boobu jaajëfal mbokk mi di Ahmed Dame Niang mu nga fële ca Mbàkke nee na di ànd ak ñun jotaay ndeysaan jëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax sëñ 97 jëf mbokk mi daa bëgg a bokk oustaz kon ñu dalal ko salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah wa ah, sëriñ bi ñu ngi sant baax a baax di leeral Paa Alioune Sall. alhamdulilah. Eh, di ñaanal yàlla nag mu yàgg def li mu def jëmm daal ci moom. amiin yaa rabbal aalamiin. mu yàgg ko teewee. Mhm. ñu ndokkee waa daara jëpp di ndokkee waa daara ci moom. waar ka tey nag suñu laaj ñu ngi jëmoon ci xiyaamu lay. waaw. xiyaamu lay dama doon laaj ndax lañ ko mën defee wala comme ni nga mën nga bërëb benn bërëb def ko. d'accord jërëjëf. ak ku ko ci naaj la gàkk tamit man ban heure dagg pour dem def xiyaamu lay. incha allah naa ne demee noonu. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci dugg boo am solo boobu. di daal fa mbokk mi di Abdoul Fattah Fall dëkk Touba di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf mbokk mi nee na xiyaamu lay li ndax ci jàkk rek lañ ko mën a defe wala mënees na koo def ci beneen barab bu dul jàkk. waaw keroog ba ko Omar ba Xattaab fekk ci jàkk ji day mhm. lam ci wax jar na di ko defee ci jàkk mhm. ndax Umar Xataab daa dégg ñun ñi di ko julli mbooloo mépp ñëw mu ne lii lu mu doon ñu ne ko dañuy def mu xiyaamu layli mu ne ni'matil bid'atu haasihi loolu mu ci wax nag jaar na kon du ko defee ci jàkk ku ko man ku mënut it ni nga ko man a def jàkk nu nga ko mën a defee sa kër mhm. waaw ku ko mënut it ni nga ko mën def jàkk nu ko mën def sa kër mm-hmm. ndax julli dañ ne julli goo xam ne gi du farata defe ca kër ga ci la ëpp tuyaaba mm-hmm. julli guy farata nag defe ca jàkk ja ëpp tuyaaba mm-hmm. wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal te di la jaajëfal keneen a ngi nii di bëgg bokk ci jotaay bi ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah waaw euh, man la seen taalibe bu ñuy tuddee Ibrahima Diallo maa ngi woote Allemagne Ibrahima naka waa Allemagne waaw ñu alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi félicité ci seen euh, liggéey bu rafet bi ngeen di def. jërëjëf jërëjëf. <coughs> léegi daal man lu ma bëggoon laajte mooy comme oustaz dafa ne xale yi xale bi fa gën a ndaw mi ngi am 9 ans léegi ma doon laajte. Mhm. kii am ki nga xam ne daanaka mag la borom kër la. Mhm. te bëgg a mokkal alxuraan léegi moom ban ban programme daanaka la koy digal pour moom moom tamit mu mën a mokkal alxuraan. d'accord. jërëjëf am na solo oh. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu sa dugg bu am solo boobu. Mm-hmm. tubarkalla mbokk mi mi ngi tudd euh, Jibril mar ma ngi si caaro ginnaaw raay di ànd ak ñun jotaay bi. mbokk mi nee na euh, daara ji wala ci sa programme ndax fàggul nga mag ñi nga xamante ne ñoom weesu nañ at yooyu euh, ba noppi bëgg a mokkal alxuraan ñoom nan la ñuy def. waaw jërëjëf ci laaj mbaam solo bi. Mm-hmm. li def mooy xam nga alxuraan boo nan naan mille aaya la. Mm-hmm. bu fekkee da nga koo calculer six mille ay ak nangam mba sëñ Mbàkke mhm. boo divisé par trois lu mu la jox mooy at mu jot boo xam nga bis bu set boo mokkalee trois aaya mhm. ba divisé par 4 but bu set 4 aaya ba divisé par 5 but bu set 5 nu nga koy def mhm. maanaam da nga jël alxuraan ji ne ñu ne la nangami ay la nga divisé par deux par trois par 4 par cinq soo divisé par 2 da nga xam ñaata at ngay am pour moo alxuraan boo divisé par 3 da nga xam ñaata ngay at pour moo alxuraan par 5 par 6 ça dépend. kon ngay da ngay calculer aay ni mu toll rek selon li nga bëgg. su ko defee mu jox la ko ngay def ba bu seen nga mokkal 3 aaya at mi 365 jours fa fa 3 xam nga xam nga dara la. ñaari at yi kon daal di dara la. donc système boobu ngay jël rek léegi te incha allah nga mokkal alxuraan. ko shukran ci laaj bu am solo bi. am na solo oustaz jërëjëf mbokk mi ci duggam bu am solo boobu meneen mbokk mi nii daw di ñëw. waaw bisimilah Mbacke na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah. le ancien auditeur la. ah ok ancien auditeur bisimilah. Euh, sant Fall dëkk fii ci Parcelles Assainies yéen yàgg a woo. jërëjëf Fall naka waa parcelle. di ziar bu baax a baax. jàmm rek kay. di leen ndokkale ci weer wi. jërëjëf jërëjëf baax a baax. jërëjëf Fall jërëjëf. Euh, ñu ngi seetlu ñu ngi teew lu émission yi fu ñu toll. alhamdulilah. ñu ngi siyaare bu baax a baax na jërëjëf jërëjëf. xam naa sax xaw naa yàgg war naa ko te waaye daan ñu defal conférence wax ni sëñ Mbacke Ahmed Dem waa Njaareem. waaw ndeysaan. fii ci parcelle moom moom moom ko bokk na ci ñi ko daan taxawee. dëgg la dëgg la. waaw xaw naa ñu jàng nag rafet bi temps yëpp defee néew nag dafay fete Touba. ndeysaan. ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax. alhamdulilah. di son su sànni ay tuuti ay kàddu laajte tuuti rek mu di maanaam daal duñu am miin daal euh, imaam boo xam daal maanaam euh, bu dee jàng sàdda hmm. euh, yi daal du ko génn ni moom daal xaw naa doy waar jàng mu takk moom xam ne daal xam naa ak càggante am na ci daal mu xaw lu mel na ci misaal tey bu doon jàng tanazalu xam ne day maasi yëpp day na tanazalu ak yeneen yu bëree bëri yoo xam daal xam lool ñàkk euh, loolu ba xaw daal xaw nañ cee am ak kilo léeg-léeg daal dafay xaw kii suñ dañuy xaw a jàpp loolu laal ñuy laaj ndax loolu moom ndax ah, jar na yenn wala moom Mm. daal ba xam ci doon laaj xalaat ba xam. am na solo jërëjëf ku baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu waa parcelle yëpp tey rafetlu dugg gi. jaajëfal mbokk mi Mansour la tudd na mi ngi Pikine Ecotaf di ànd ak jotaay bi. mbokk mi nee na aji jiite joo xamante ne am njàngam daal day gajaf lool ci wàllu njàngin waak maxaarij baak bàyyi sadde yaak yi ci aju nee na loolu euh, ban taxawaay lañ ci war a am. waaw xanaa pexe ma sëñ ba waxoon ca ka doon yëkkati xasaay itam tooy xepp. Mm. xasida ga tooy xepp sëñ Mbàkke mu ne mu ne dongo yi kan moo mën a fexe ba keer noppi te du mer imaam bi noonu lañ koy def rek nan la ñuy fexe ba mën koo folli te du mer <laughs> rek bu defee ñu def ko bu defee bu ko defee ñu def ko waa ñu kan moo mën a fexe ba keer noppi te du mer daf ne man ñu ne ko demal mu dem na ko suñ bi ne nga jël ñëw jël baraade bi mu bég mbég moo xam ne ndeysaan daal jël baraade bi bàyyam nekkoon ko itam na ngeen ko fexee nax rek ba mu génn ci yooyu incha allah solo jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax mbokk mi daa bëgg a bokk moom it eh, ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na nga def Babacar Ndiaye Baye Fall sama sëriñ maa ngi lay ziar Babacar waaw maa ngi lay ziar waay na def jàmm ñu ngi sant bu baax bàyyi nañ ci jàmm naka liggéey bi waaw alhamdulilah ñu ngi sant bu leen coono jërë ngeen jëf ci taxawaayu démb bi. waaw ah, jërëjëf coono bànneex la. alhamdulilah yal nañu ko yàgg fekkee te yàlla fay leen effort yëpp. amiin allahumma amiin. alhamdulilah. moom lu ñu sonn ci kanamu Oustaz rek duñ ko yëg. ndeysaan. du ma ne sax sonn mënuñu ko sonn. dëgg la dëgg la. waaw lu ñu ci def rek dañ koy xeeb. ndeysaan alhamdulilah li def ci ñun moo ëpp lool. ndeysaan ndeysaan te mënuñu koo fay. jërëjëf jërëjëf. waaw mën nañ see nekk di organiser soirée. ndeysaan. sorti te defuñu ko te yàlla ak moom la. dëgg la alhamdulilah yàlla nañ ko yàlla fayal. jërëjëf amin amin wéral ko. amin yaa rabbal alamin. yàlla yàggal ko suñu kanam. amin yaa rabbal alamin. ñu songu rek ci diine ji yàlla ko daan. jërëjëf jërëjëf. barke yàlla Muhammad. alayhi salaatu wasalaam. dugg sànq nag ne sa mbaaj sëriñ la mbaasi moomu dugg loo. ndeysaan. wallaahi ni mu ko waxee xamee wu ko ni sax. ndeysaan 97 Abdourahman. <laughs> yàlla xam ne ku koy laam-laamee da rek. ndeysaan. waaye oustaz sëriñ la moom. ndeysaan. ñi ko wóolu doyloo ko. ndeysaan. suñu bopp moom duñ ko laam-laamee. ndeysaan yàlla xam ko maa ngi maa ngi fàttaliku AG biñ mujjee def daara ja. ndeysaan bi muy naan ñaan xëy na man maa matagul sëriñ. ñaan ñaanal leen ma ma mat sëriñ. ndeysaan wallaahi gisee boobu ñu fa jooy rangoñ yi bare. ndeysaan yàlla xam na ni sëriñ la. tey sëriñ la de. ndeysaan. na te yàlla teg na ko suñu kanam mu taxaw taxawaay yonente ba. ndeysaan.

asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah mm. oustaz Mbacké. waaw. ñu ngi leen ñu nuyu bu baax di rafetlu émission bi di ñaanal oustaz moom moom sunu oustaz la bu yàgg ba tey ñu ngi koy mm. ñaanal gudd mm. fan bu ànd ak wér. incha allah bàyyi ko lu yàgg a yàgg euh, dama amoon ay question yu ma bëggoon ay ci bismillah. Uh-huh. Mm-hmm. Uh, bi si njëkk jàkka jàkka bi may julliwee juma bi may naafilawee mm. damay gis am nit ñoo xamante ni su imaam bi di naafila comme uh, yan saay dañuy jël kaamir bi di ko naafila ba koor yi jeex mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañuy jël seen téléphone di si liiraare alxuraan bi mm-hmm. léegi ma ne naa laaj oustaz parce que yan saay su fekkee saar yi dafa gudd mm. seetaane mën na la kii ba sa ba sa xel génn si julli bi léegi may laajte ba xam loolu mën nañ ko def te du yàq dara si sunu di en même temps que euh, oustaz bi su fekkee ñi nga xamante ni mokkaluñu alxuraan bay mm-hmm. mën a tari kaamir bi yëpp. Mm-hmm. mais mën nañ di tuuti daal. ñuy lire en même temps que euh, imam bi. Mm-hmm. mais en même temps aussi ñuy xoolaare li ñuy lire lan lay tekki. Euh, ñaareelu question bi damay laajte ñi nga xamante ni asaka. Mm. ku am revenu rek moom moo ko war a joxe. wala ki nga xamante ni am na ba am lu mu denc. d'accord. ba xam ñooñu ñoom ñaar ñooñu kan moo ci war a joxe. Hmm. lan mooy différence revenu ak am loo denc allo. Ah? loo jublu ci revenu ak am loo denc. revenu maanaam euh, ko koo xamante ne am na liggéey. ah waaw koo xam day fayee ko weer wu jot daal. koo xam ne day ku weer wu jot. ba xam kooku da ko war a joxe. wala su fekkee dafa am ba desal. d'accord ba am lu mu épargner kooku moom moo war a joxe asaka. am na solo jërëjëf. dernière question bi damay laajte murum koor. Hmm. kan moo ko war a joxe. Hmm. ak euh, nan nañ ko war a joxe. Hmm, incha allah. looloo nekkoon laaj yi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax te di la ndokkeel. di jaajëfal mbokk mi di imaam Babacar Tafsir Ba. nekk fële ca Nioro di ànd ñoon jotaay bi jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax soxna si nee na ci wàllu naafile yi rawatina fan yi ñu toll ci koor gi ñaare boo demee ci jàkk ji imaam ji di jàng bu dee xiyaamu lay di taxawaay bi di yàgg ndax nit mën naa jël ab kaamil ubbi ko di ci xool di seetantal maanaa ndax bañ xelam génn ci julli gi ndax loolu mën naa nekk bañoon koo a gën hmm. taxaw ci ginnaaw imaam taxaw bu jub hmm. di ko déglu moom muy jàng looloo hmm. li gënoon soo demee nag ba yëkkati ba yëkkati fooy xool su boobaa terewuñ la ko waaye bañoon ko dafa gën. Mhm. fi ngay xool mu nekk kaamil bi moo gën. waaye mu nekk foo xam ne ay tradition mu nekk ab tradition moom su boobaa yaa ngay jàng naafilaatu. Mhm. Mhm. lañ doon maye mooy nga ngàbb kaamil ubbi ko nii di xool di gis li muy jàng rek ngeen di àndi jàng. niñ ko may ilimaan nag wuñ koy topp ci ginnaaw imaam. imaam moom may nañ ko jamono jii ku bëgg a. maanaam naafila alxuraan te mokkaloo nga ubbi sab kaamil. waaw d' incha allah lu am solo la oustaz jërëjëf beneen bi ci topp nee na ci wàllu asaka ndax ki nga xamante ne daa am lu koy dikkal euh, jamono ju ne wala weer wu ne muy ay revenim rek asaka war na ko wala faaw day denc euh, as lëf loo xam ne day am fu muy toll mu door a mën a génne asaka asaka daal ñaar nekk ci penc mi mhm. ki ko war a lekk ak ko war a génne mhm. ñaar ñu dong nag lañ ki war a génne asaka mooy ki denc loo xam ne mën naa jënd quatre-vingt-cinq grammes or fukki weer ak ñaar mhm. koo koy génne asaka ki lekk asaka mooy ki denc lu toll noonu ñoom ñaar képp a fi nekk nag. monsieur mhm. Korone ci laaj solo bi. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñaar fukki waxtu moo jot ba teg fanweeri simili ak juróom-benn salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah soxna si. Oustaz Mbacke noo def. ñooy ziar. jërëjëf. ana Oustaz. mi ngi nii. Eh, ci jàmm bu baax kay. man tuuti rek. waaye waaye fi ne maa ngi koy bëgg a yóbbu ardo tuutee ci ah, bu kenn àtte moom jekku naa ko de. <laughs> yàlla baax na. <laughs> ndeysaan. Ah, mi génn léegi. Abdourahman 97 waaw. Abdourahman 97 ndeysaan. waaw ñu ngi ziar bu baax. ndey Abdourahman de ku am xorom la ndeysaan. gis <laughs> la la. loolu lañ mel moom ci kër gi. ndeysaan ndeysaan. am na ko yàlla defal jàmm. amiin amiin te defal leen ko. ak mbooloo mi jëlee jërëjëf jërëjëf. waaw ñun dañu doon ziar jërëjëf jërëjëf jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko ndokkee. jaajëfal mbokk mi di El Hadj Thiaw ak Khady Thiaw ña nga fa la ca jotaay bi. ñu ngi koy jaajëfal moom itam te di ko ndokkeel Oustaz ci dugam boobu kooku sëru Abdourahmane la sa soppe boobu. dugg tey def seede yu rafet yooyu. sopp naa la ñoom ñëpp tubarkalla. jërëjëf mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. Mbaye Gajaga na nga def siyaare di siyaare ustaas bu baax a baax alhamdulilah feddale ci liñ sall de ci kanam ustaas mhm, ndeysaan nga wax ni que macha allah mag nañu sëriñ doy nañu sëriñ jërë ngeen jëf nga wax li nu mu tudd maxaasinu ñu jabal waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko alayhi salaatu wasalaam daw futal bor la la xut naa maxaaka waa nootoo ñun ñëpp nangu nañu sax suñu sëriñ la mën nañu sëriñ ñu ngi dekkal suñu taal bi ndeysaan ndeysaan di wax di jéem xaw na xam naa da nga xawoon a jàpp ne yebaloon nañu suñu benn waaye muy Modou Mar ndeysaan ñëw na ñëw na ñëw na waaw ñu ngi jaar bu baax sax di dukkat sa kanam di di di dekkalaat suñu taal bi ndeysaan ñaan yàlla nga ñaanal ñu di ñaan yàlla yàlla bàyyi la suñu kanam ba ci kanam amiin amiin yàlla nga ñaanal suñu station ñun ci itam daara gi ñu sumb yëpp nga ñaanal bañu sottee jàmm ba ñu am daara bi yëpp amiin ginnaaw loolu daal dañ suñu xol moo sedd trop ñu déclaré suñu taalibe bi moo tax ñu doon woote rek ndeysaan di ziare ñëpp di baal àq ñëpp di jërëjëf sëriñ boobu sëñ Mbaye Gadiaga la tudd Oustaz moom itam ñëw na indi ak taalibeem nee na lay yeesal ak a sàkkuwaat ñaan ak di dolli ay seedeem ci seedey taalibe yooyu génn yal na yàlla nangu yëpp te bokk ci ñu bokk suñ Mbàkke kii Modou Kan Modou Njaay Kan la tudd ma nga ca Kolobaan wala bokk la dëkk mi ngi Tuuba maag moom ñoo bokkoon jënn daara daara yi bàyyi alaaji màggat jéy Modou Njaay Kan kan ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko ndokkeel kenn ñi nii ñu dalal ko asalaamaaleykum aleykum bisimilah. Oustaz Mbacké Sylla. waaw. Mbaye Sakho nanga def. sant yàlla bu baax a baax. jërëjëf Sakho. na nga def ak coono bu baax a baax ci weer yi. jërëjëf jërëjëf. Eh, di siyaar Oustaz bu baax a baax. ndeysaan. waaw eh, di ko ñaanal fu mu toll noonu wax yàlla. allah amiin yal na yàlla nangu ñaan yëpp. Eh, di wax ne waa Kaolack yëpp bëgg moom. jërëjëf jërëjëf Sakho. waaw su nekkoon li ñu féetewoo bari na ñu koy yàlla. jërëjëf mënuñoo dugg waaye suñu tool ñu koy déglu. ndeysaan. waaw ñëpp dañ koy siyaare ñëpp dañ koy bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. incha allah xanaa amoon ñaari laaj rek. ñaari laaj. boobu laajoon naa ko si sax ñu xawoon kaa fàtte mooy bayit ma Ahmadou Bamba yi. waaw. su ñu waxee awaa xaadimal muxtaaru laa taw sa saxbahu. te hmm. man yéen tawum fal mat mat un mu xattahu. Hmm. waaw ñaari laaj moom laaj yóbbante la daa am benn mbokk bu ma laajoon mais mm-hmm. daa mbokkam mu ko yóbbante woon jëndee ko maanaam jëndiloo ko ab téléphone mm-hmm. bi mu demee fi ñuy jëndee téléphone mu tombé mu am promo maanaam bu la jaayee benn dañ lay may benn mm-hmm. léegi moom dañ ñu jëndee ñu jaay ko benn may ko benn léegi muy laajte boobu ñu ko may ki ko yónni woon moom moo ko moom wala moom ñu jëndi woon moom moo ko moom jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci duggam bu am solo boobu. kii mi ngi tudd Moustapha Ndiaye nekk numéro en nekk fu la ci cité douane di ànd ñun jotaay bi. ñu ngi koy jaajëfal sëñ Moustapha Ndiaye numéro un gëj nañ laa dégg ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax mbokk mi nee na oustaz kii aji jëndi téléphone la dañ koo yónni mu ko doon jëndi ba mu demee nag ñu am luñ ko may ca njëg ga moom mi aji jënd ji moo ko moom wala ka ko yónnee ko moom. ka ko yónni moo ko moom. Mhm. la yónnent bi jàngale woon. ndax ker ba mu yónnee saxaaba bu mu jëli impo ya mhm. ba mu demee lañ ko fa may yonent bi daf ko jël booleek lam indi lépp ñu bokk ko kon nag ki nga yónnee ne ko dama jël ma téléphone mu jën téléphone ñu may ko ca benn ki yónnee woon moom ñaar yëpp boo ñëw jox ko ñaar yëpp nag mu jox la benn su boobaa moom wallahu taala alam wa am na solo oustaz euh, mbokk mi daa bëgg a bokk dalal ko asalaamaaleykum salaam bisimilah bisimilah waaw ku baax ki jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar yàlla nangu liggéey yëpp amin yaa rabbal alamin dëgg yàlla am na mbégte lool lool ci émission yi. jërëjëf jërëjëf. njëkk yooyu mujj yëpp nag. jërëjëf jërëjëf. wax dëgg yàlla nag di am mbégte nag ci daal bi nga xamante ne bii mooy daal Alioune Fall bi. ndeysaan. ak ñu muy doxee. ndeysaan. maanaam dañu leen ñaan yi yéen ñëpp nag waaye oustaz boo ko ñu tudd ko. Hmm. bis bi xaw a rek ñu tudd ko moom. ndeysaan. waaye li wétu woon mooy am na mbégte ci moom. ndeysaan. ñu ñu ñaan yàlla ci boppam ñu xam ne moo am kattan. Hmm. min dimbale ko ba yoon ni mu tegee suñu mm-hmm. borom ko ci. ndeysaan. ba mu bañ ko jàdd parce que moom ci boppam. oustaz mm. Alioune Sall. Mm. moom bu xamee ak bu xamul. Mm. suñu ci Sénégal ci gën a bëri ci dëgg la. nangu nañ am jàngaleem. dëgg la dëgg la. loolu nag nag bu mag la am. parce que saa bu saa bu wàccee lu tuuti rek ni man. dañuy wàcc te ku leen ci dugg lakk. Mhm, ndeysaan. ndax dina otaat nee na. yàlla ñu xam ne borom kattan. amiin amiin. mu dimbale ko. Mhm. dimbale bi yëpp gën nañ ko ci yow yow Ndeye. ndeysaan. xam nañ am na ci moom mbir mi jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. ba li ma bëgg a laaj nag mooy. Mhm. ñaari laaj ñaari laaj. benn bi. ki nga xamante ne ji moom mooy laaj laaj bi nga xamante ne bii ñu doon naaf si jàkka yi ci xiyaamu léegi. laaj ko si am si na am tontu bi. Hmm. tontu bi moo desee leer. tontu li moo desee leer. waaw bu bu bu baax na ndax si na day day que da bi ñëpp daal dégluñu ko. Hmm, dëgg la. d' accord. ñaareel bi mooy. Hmm. imam imam mi nga xam loolu moom Sénégal na lool. <laughs> maanaam nag ñi nga àgg na ci ñun ñun ñun suñu bopp ñun. Hmm. jàkk bi nga xamante ni imaam bi li wax kenn xamu ko. Hmm. maanaam ñun duñ taxawal. Hmm. ñun duñ taxawal dem. ni ku woote lu mel ni ku woote woote bu toll ni yoonu yàlla mag bi. maanaam fexe ba ni mu sawat nag am na solo trop. bu ko defee léegi tey te waaye waaye nag ni ko suñu tontoo tamit maanaam ni ko ni ko ëttaa tontoo. al yow rek li ñuy déglu sëñ bi. ni ko ëttaa tontoo dañ ndax dafa tontu dafa nekk tontu boo xamante ne bii mën nañu wax mën nañu wax ne ñëwul ci téere yi mais dafa petaagu ci. Hmm. ñu ci am dëkk bu baax a baax. jërëjëf comme ni mu ko waxee nii waxtaan na moom. jërëjëf comme ni comme ni sëñ bi waxee woon ñu nëppaloo ci jànqasaay bi. Hmm. maanaam message boobu dafa nekk message bu am solo boo xamante ne bii am nu ci dëkk bu rëy jërëjëf. ñu ngi sant seen gërëm di leen ñaanal ñaan yàlla def jàmm ci loolu ak yooyu yëpp nag. Hmm. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko ndokkeel. di ndokkeel mbokk mi Habib fay la tudd ma nga ca Diourbel di am na ñun jotaay bi. jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te di ko ndokkeel mhm. mbokk mi nee na oustaz dafa bëggoon a euh, maanaam daal ay commentaire la indi ci euh, laaj yi nga xam ne jotoon na fee jaar waaye la Seydina Omar tontu woon ba mu rombee ñee naa fi la bëgg na nga ñëwal ko ci tontu li ndax da nga koo wax ci arab te waxoo ko ci olof waaw ah, Seydina Omar dafa ñëw jàkk ji fekk leen ñuy def xiyaamu layli mhm. àndan ko ñoom ñëpp mu ne lu fii ñu ne ko dañu dañuy naafila mu ne ah lii de biddaa bu baax la lii de moom biddaa bu baax la loolu leen wax keroog mm-hmm. loolu tax ci la borom xam-xam yi jóge ne kon biddaa bu baax am na mm-hmm. tabarkàlla coow la na kur waaye daal moom def na lii de biddaa bu baax la o mm-hmm. shukran ci laajam bu am solo boobu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci duggam bu am solo boobu te di ko ndokkeel euh, vingt heures jot na ba teg ñeent fukki simili ak juróom dafa am ku nekk ci yoon wi xam naa ne ñu dalal ko 88 628 98 98 salaamaaleykum waaleykum salaam bisimilah bisimilah. sëñ Mbacke ñu ngi ziar bu baax. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. na ngeen dafa coono. alhamdulilah. waaw ñun de ay ay ay ndongo ustaas la. ndongo ustaas. di di di roy ci moom bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf ndeysaan. xam naa ni côté Alxuraan sax peut être moom day defee ñu mel ni moom waaye lépp loo xam ne daal du socialement mu ñu yëg di ko jot laa mu koy jéem a mel. ndeysaan. mais man moom personnellement leen daal moom ma jaaxalagum mooy pourtant dama gis seetlu ni moom li muy naan xëm dafa gaaw a xëm. man nag man côté boobu moom xam naa ne royeeguma ko ci. parce que man moo tax may laaj moom ma bëgg koo laaj loolu lan mooy kii bi man moom jooy dafa maa yomb. Mhm. waaw jooy moom waaw. jooy moom xaw ma sama xol moo dëgër xaw ma daal moo ko siy laaj ñu ngi koy jaajëfal baax ci duggam bu am solo boobu. di jaajëfal mbokk mi di oustaz Baye Cheikh Seck nekk ci RDV wala DT de DTV. Mhm. di ànd ñun jotaay bi. ah Cheikh Baye Cheikh Baye. Cheikh Baye Seck Cheikh Baye Seck Cheikh Baye Seck ku baax ndeysaan. ñoo ngi koy jégalu nag ndax nee def na ittisaal ngir jokkoo ak ñun. waaw waaw ndeysaan waaye nee na wa maa xaalafani al xad li li mu kaalamatikum. Mhm, mhm. wa kuntu uridu istidaafata saadatikum fi DT xaddi fii barnaamij jotaayu Ramadan. àll mhm. si saamu baasan yomal xamis. ndeysaan ndeysaan wax na ko wax waxoon na ko na laa jot ay ma ne ko na la yónnee message comme noonu. xay na dëgg la xam naa dafa yónnee message bi ñu jàpp ko ñun tam ci message su. Ah. kii rek ba far jot door ci àgg ni tey. parce que maa ngi ci ñett ñetti téeméeri ñaar téeméeri message ak juróom-benn. d'accord. Euh, ma door a àgg ci bosam tey maa ngi a baax di ngeen mën a kii incha allah incha allah moo tax bàyyi naa ko effacé wu ma ko kon ñu jël mbàkke auditeur bu auditeur wala auditrice bu mujj bi ñu jël ko asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam wa jot naa leen merci waay <laughs> ndeysaan leen di siyaar jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla def ñu fekkee déwén ñu ñëpp yàlla nangul ñu suñu amin yaa rabbal alamin amin waaw benn affaire laay kii par hmm. exemple oustaz dama koy laaj hmm. ak yow yow ak Mbàkke sax est-ce que yonent bi wala yàlla sax dina kontaan ñeneen ñi comme ñenn ñi ni ñuy ni ñuy jëlee chia yi di leen di leen di jéem a génnee mel ni ku leen di génnee ci diine mi te détails yi mel ni détails yoo xam ne c'est insignifiant quoi. Mm-hmm. ak chia yi ni ñu maanaam xam nga man sax duma chia mais dama gis ni ñu amee fulla par rapport ak islam ni ñu koy défendre ni ñuy tenir tête yenn grande puissance ak ni ñu bëree ci àdduna bi est-ce que nekk est nekk nañ ñoo xam ni su dul woon yàlla namm na ñoom ñu nekk ñu nekk ay jullit comme ñëpp est dinañ lañ bàyyi noonu ñu nekk seen seen dëkk ñu nekk ñu intelligent ci ci peuple yi ci monde bi di créer technologie ñu avancé ci et tout di defendre islam est yoon la ñenn ñi di leen di xawal di wax yi sànn yenn baat yi quoi wala détail yooyu du des dañ dañ ko war a maase rek xam ni histoire la woon yàlla rek a xam quoi d'accord mhm. am na solo Oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax di ko ndokkeel ci duggam bu am solo boobu jaajëfal mboolem mi nga xam ñu ngi doon ànd ak ñun jotaay bi tabarakallahu bañ ko tàmbalee ba léegi macha allah di jégalu léeg-léeg nit ñuy ñàkk dégg mhm. am na solo Oustaz noonu lañ koy jaajëfale mbokk mi ci wàllu euh, yi fi xewoon démb la ñëw ci wàllu siyaa yeeg seen taxawaay ak wala boog ñi euh, delluwaat ci wàllu histoire ba di ci réeroo loolu bëgg nga jox ko ci sa xalaat waaw sama xalaat de suñ bàkkee mhm. barki démb benn imam bu mag ci Iran mhm. dafa def fatwa boo xam ne bii ci manaar hmm. télévision yi nekk ci àdduna si yëpp ñu ngi ko di joxlante hmm. dafa ne ñu seetlu ne saagante bi am diggante chia ak sunna hmm. wala boog chia ak lu ñu ko mën a tudde leneen mu ne loolu nan nan nan jël ñun ñi nga xam ne ñooy ulama yi nekk ci chia def fatwa araamal ñu bàyyi kàddu ñu sànnente ndax du defar waaw kàddu yu sànni ndax du defar. suñu mbàkkee dañu am benn réeróo bu ci am rek ñu daal di jël nag. affaire bi gonflé ko. am ñi bind ci côté bii di génn ña la ci diin ji am ñu côté jënd ci côté bi di gën nañ ci diin ji ñee dañuy wax ne képp koy wahabit nangam nangam ñee ne képp koy chia nangam nangam ba mu jàgg nag ñu jëlee loolu nag indi ko ci au ñu def ko léegi diggante ñoom ñu def ko ci diggante chia ak sunna. du dëgg. Mm-hmm. cool na kuru nag waaye daal li ci doon xalaatu diine àdduna dañoo xam ne. aqida bi nga xam ne moom lañuy jàngale ci arabu saoudia mbàkke mm-hmm. ak sharia bi ñu jàngale ci iran mm-hmm. buñ booloon ñoom ñaar moom àdduna si kon nag waa àdduna dañ fexe ba ñoom ñaar duñ bokk taabal lu mm-hmm. dëgg comme ñoom ñëpp nangu nañ li yàlla yónni yónent bi dañuy julli mm. di war ak natt asaka léegi furoo ya ñuy wute ñoom mm. buñ toogoon ci taabal waxtaane ku mën caa déggoo lu rek la waaye dañuy fexe ba duñ toog ndax ñee dañuy wax ñee ñee di wax ñu ñu ñuy sànnante kàddu rek macha allah mm-hmm. donc li mbokk wax ni tam seetlu ko ci lu ci am la ñaari mm-hmm. puissance yooyu buñ dajee woon li lislaam di am kenn xam nu mu toll. Mhm. malheureusement. ndeysaan waaw am na solo oustaz ñu jaajëfal ko baax a baax jaajëfal mbokk yi nga xam ne jot nañoo dugg ak ñi doon tocc toccal te egsi wuñ. dellusiwaat dëpp le micro laaj la kañ la bàyyi xëdd. incha allah oustaz bu ñu xëddee 5 heures 5 euh, ci la bàyyi xëdd incha allah. tabaarakallah bu ñu wooree ba. bu ñu wooree ba 19 heures 37 ci la ñuy dog allah. kon mel na suñu conférence jeex na a noppalu tuuti. waaw xaw a noppalu ndox incha allah. incha allah loolu mooy li nekk ci suñu yi doon tàggoo di wax auditeurs yi annuur yi ñu doon déglu ci suba gi xam naa suba incha allah mooy doon annuur bu mujj bi dañuy ñëw rek daal di tàggatoo sax ci minute yu néew ndax dañoo war a am ah, incha allah wax nga dëgg waaw góor waay loolu tam am na solo sëñ Mbacke incha allah kon rek xam naa ginnaaw ëllëg ñu dellu faat ak yow ci gaay incha allah bu waxtu wi ñu dégluwaat ni daa daatu rahman waaye talaata incha allah dinañ ñëwaat ànd ak mbokk yi ci yes alunaka fi diini wal قول سيد روحنا